yow yàlla yàlla na nga ma musal ci sa mbugal bés ba ngay dekkal say jàmm allahumma qinni yow yawma tabaasu ibadak allahumma qinni yow yawma tabaasu ibadak xadis bi si yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ku dimbali bokkam ci mu nekkul sunu borom dina ko dimbali àdduna ak àllaaxira xadis bi al bayhaqi nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man nasara aqaahu bi zahri alxayb nasarahu allahu fi dunya wal axira rawahu bayhaqi waxtu julli yi suba waxtoon dana tàbbi 6 heures 14 juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak ñeent tisbaar 13 heures 47 benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñaar takkusaan 16 heures 47 ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñaar timis 19 heures juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñeent gee vingt heures vingt cinq juróom-ñetti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom loolu mooy waxtu julli ci Touba ak ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres dina wàññil ko féetee sowu ñaar fukk ak yokkal benn simili soo jant bi dina fenk sept heures vingt sept ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñaar di so dix neuf heures dix ñaari waxtu yu tegal fukki simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin